musiba mbaaba kuma am na de terminé ne kaane musiba ba day waaw ca caaroy géej la amee allahu akbar benn njaboot goo xam ne day ca biir géej ga la ñu des maalikan njaay mi lée toll ci juróom fukki ak juróom-ñeent waaw dama ne la mook doomam ja di taawam bële di limaamu njaay fanweeri at ak juróom-ñeent ah. dama ne la ca géej ñu des allahu akbar te néewu baay ba day ci ngor la ñu ko gisee démb daal di koy suul kon démb lu tolloo juróom benn ci ay nappkat day nee na ñu may réer ca biir gox ba yéeni kaay dee lu tolloo téeméer ak juróom fukki ci ay nappkat day ma allahu akbar la ilaha illallah yéene kaa ne gaal ga day xootu xootu gaal yi ah ay nappkat ko def waaw Moustapha Diop mi nga xam ne daa bokk nag ci kuréel gi njaboote kon nappkatu cosaan yi lée nee na gis nga jën ci boppam moo amatul ci biir géej gi la sabab lu ni mel nag mooy bateau yi nga xam ne ñoo jóge ca bitim réew gële léegi nag nappkat yi dañuy dem ca biir géej gi fa looloo jur musiba bi waaw Sud Quotidien gis nga signataires yi nga xam ne nguuru Sénégal gi daal dina koy signé nag ay union européenne gi lée waaw looloo tax ba koom-koom bi nga xam ni moo nekk ci biir ndox mi day dematul dikkatul dee na yàgg na ay ay déggaa koo la teroo def de ca jamono joo xam ne nag suñu nappkat yaa ngi dee direct news ne ca jamono joo jee pharmacie maar di taali waaw ban nga ma sa gisee ay arrêté yoo xam ne ñoo ëpp doole kon ay décret waaw dama ne la seen war lool lool ci wàllum démocratie mi dina lool lool lool a nañu sénégal day moomatul boppam la sénégal moomatul boppam le kaay gay, Sénégal kay na na ci fukki rew yi nga xamne kon ñoo doon tiitaru le témoin yene kaay ne ni gis nga lu yagul waaw senegal royu kay la won fi ci doonuk Afrique day ci lu jëm ni ci wàllum liberté ak démocratie waaye tey jilee waaw ña nga ca juróom-ñaar fukkel japp juroom ñett fukkel ak juroom ben ci ay place la ilaha illallah Dakar Times de xam nga lolé liko gëna a jur moy walum gor jigen gi lée LGBT yi waaw ñàkkaloo na ay point Sénégal de parce que nak lu jëm ci sen walum ak ak yelleef nee nañ dañ leen a toppatoowul góor ñiy sëy biir jigen ñiy sëy seen biir ak ñeneen ca digg ba waaw doy ca jamono jooje enquête yéene kaay nee na atu politique bi de ma ngay jax nag dëggantaan parce que waa Benno Bokk Yaakaar ña ngay rey seen bopp ko góorgóorlu ngir mën a dellu siwaat coowal suite ba te gilee moo daal yee opposition ba waa M2D ñooñu moom léegi ñooy organisation bi nga xam ne nag ñooy star ñoom Cheikh Tidiane Dièye dama ne la ñooy star yi kay ci jamono jilee Karim Wade di ne yónnee lu na ngan ay 8 8 yow léegi si ko yéene kaa ne Macky day waaw moom lancé waat na dialogue national ba laa la wax ñaari weer la may gars yi ngir ñu yeggali kon liggéey ba yéene kaa gi ne waa PUR waaw nee nañu professeur Issa Sall na leen delloo poste député ba laa la wax maar day taali waaw waaw parce que parti wu Moustapha Sy bi ne njiital Moustarchidine wala Moustarchidaty waaw daal dinañuy bind lettre nag Moustapha Niass ngir professeur Issa Sall delloo leen poste député bi la ñoom dimanche bii di ñëw waaw Déthié Fall kay bàyyi na Idrissa Seck soow ba mu demee ca mburu la ko Déthié bàyyi exclusive yéene kaa ne Abdou Diaw tamit day bàyyi na Ousmane Sonko mi lé ah waaw parce que waa ji day nee na gis mi ah du tàkk ngir wàllum góor ak jigéen laa la wax booy benn ñaar te gis nga deuxième boobee Ousmane Sonko di wax du am ci mim réew parce que comprendre ni lañ nu mu demee laa la wax critique yéene kaa ne Ousmane Sonko day waaw la ko gars moo tax parti Pastef fa day ñoom moom xam nañ xel ne kii ñu jàkkaar loolu di Macky Sall du may dara ba dara booloo jeex laa la wax te yéene wu leen looloo tax nag ba Ousmane Sonko ne dana liggéey ku ne ba mu des Macky Sall mi ak waa këram 24 heures yéene kaa ne gis nga coow li dox ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak waa Pastef waaw xare ba dara la du sedd de du sedd de déedéet te gis nga ñi nga xam ne sax ay observateur la ñu waaw nee nañ gis nga président arrestation yi bañ commencé ba léegi ni lée ministre yi directeur généraux yi daw làqatu ji léegi nag ñi ngi commencé génn ndànk-ndànk ci seen ruq yi ñu làqatu woon ñoom ministre Macky Sall yi ak dese laast man kay nag ñii ànd ak Macky Sall ni ñuy yàqalee seen leader bi la di Macky maa di taali waaw ci ay wax yu ñaaw wax yoo xam ni mën naa taalug réew ak communication bu bon xoolal li Aliou Dembourou Sow wax su Ousmane Sonko bëggee xeex dana ko am xoolal maître Malick li mu wax nee na yi nga xam ne ñoo a bëri yëpp ci Ndakaaru Ndiaye Diop ci lée ñi ànd ak Ousmane Sonko leen rey allahu akbar la ilaha illallah laaste xam nga ni ñi dañuy yàqal Macky Sall de looloo tax nag ba Macky Sall kontaanul ci ñoom benn yoon ni ñu géré coowal Adji Sarr gi lée Macky kontaanu ci déedéet waaye tamit lam leen dénk ngir ñu liggéey ko Macky Sall kontaanul ci ñoom de déedéet 24 heures yéene kaane moo tax it maître Malick ministre de la justice waaw waa Pastef yekk nañ ko lu mel ni xeme la tey mooy nga xam ne kon dañoo dem ba ci diwaanu Ndakaaru Njaay jël Jóob ak ca bët Saalum réew ma Ziguinchor ak la ko wër ñoom ñu dem ca diwaanu Fuuta gale moo tax it waa Fuuta nee nañ leen du fii Fuuta Tampi Fuuta Fatigué Fuuta Futi exclusive yéene ka mouvement yi Fuuta nee nañu troisième vague corona bi daal gis nga su amaatee ca Fuuta googee ginnaaw yàlla ñoom Farba Ngom ko fi indi ndax seen meeting mi nga xam ne kon doon ko amal barki démboo Njaay source benn délégation xalif général waaw a waroon naa bokk a réunion boobee ak segu juróom fukki millions laa la wax la ñu dimbalee njabootu ñi maanaam ci kaw gàttal mars 2020 ak mars 2021 Serigne Mountakha Mbacké day lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom fukk kon ci ay millions génnee ko ngir dimbali kon askan wi lée œuvre sociale ñaari téeméeri millions ci xeexu corona bi téeméeri millions ngir jàppalee ko jumaaw ci yoon bële ca marché ca Touba cay Mbacké bàllay baax libération kaa ne déglu ba ñu war a déglu ñoom Guy Marius Sagna googee ak ñoom àndal démb day waaw atekat yéene ca troisième ak huitième cabinet ñoo remplacé doyen des juges Samba Sall parce que nee nañ Samba Sall mi lée yaram bi daa sutante lu ëpp semaine a ngi nii lekkoon mu feebar day di sëy day meeru njaareem li maamu laay ci la solo yéene kaay waaw ci lu jëm nag ci wàllum fi nag ci biir réew mi lée nee na yéen seen yi loolee digaluma leen leen kon ci wàllum jafe-jafe yooyee a làqu ngir mën a cëru ko waaw <laughs> cay meeru njaareem limaamu laay waaye béy di sëy nag ak loo wax wax wax wax wax wax wax te waxoo ni ki yor pétrole bi tam na ko leeral wax ja des na suul gaz du tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal